dal ak jàmm ci Leral TV Leral point net tey jii ñu ngi daal di xëy ci xëtam gu njëkk fàttaliku bateau le Joola mi nga xamante ni suxun na naka tey jii rek daal mooy anniversaire la muy 26 septembre 2002 tey jii di 26 septembre 2022 mu am 20 ans naka noonu rek daal muy li nga xamante ne ab tiis ab naqar ginnaaw waa Sénégal yëpp ak àdduna wërngal këpp daal di ko jooy ba ñu mu defoon rek daal ci lu toll ci 2000 morts kuréel gi ëmb rek ñi nga xamante ne ñoo ci ñàkk seen bakkan ñu ngi ko daal di xayma ci lu ëpp loola naka noonu rek daal muy suux gu gën a métti histoire maritime naka noonu ñenn ñi itamit dañ daal di wax rek bateau Joola daa di woon chargé ci lu ëpp ñaari yoon ci li mu waroon jël tourné ci large Gambie mu nekk rek daal diggante Gambie ak Sénégal naka noonu rek bato bi di daal di tourné ba rek daal daal di perdre équilibre dal di suux ñu ci mënoon a fay fay xamante ne tamit mënuñ ko woon ñuy daal di daw rek daal ci canot de sauvetage yi naka noonu ñuy daal di xamle ci fàttali dong ñaari canot de sauvetage dong moo nangu woon tijjeeku te tamit secours gi nga xamante ne moo fa daal di njëkk a ñëw muy secours étrangère ñoom ñoo fa daal di a ñëw ci suba si rek daal lañ fa daal di ñëw secours officiel mu ngi fa dal di ñëw après midi bi mu nekk rekk daal suux lu metti lool Sénégal di ko jooy àdduna wërngal këpp naka tey jii rek daal ñu koy fàttali ñuy masawwaat ñi nga xamante ne ñoom ñoo ci ñàkk seen doom wala sax seen njaboot ak ñi nga xamante ne itamit tey jii dafa nekk bës bu tiis ci ñoom ba tey rek daal ci xërëb gu nekk ci leeral point ñu àddu ci mbirub Kaliphone mii nga xamante dañ ko accusé de viol par mannequin bii nga xamante ne mooy aji caaxee naka noonu rek daal ñu daal di ko wax ne moom mii moo ko daal di violé waaye ab loxoom rek daal la daal di jëfandikoo ca mu doon rek daal ab situation gu critique ci Kaliphone mile mbir mi kat daal jéggi na dayoo ndax fu mu ne nii moom ngi ci loxo yoon ba tax na lu ci gën a yéeme mooy yeneeni ndaw si itamit ñëw nañ addu ci lu mel noona ba tax na fu mu ne nii lu yoot Kaliphone nag neexul waaye moom li mu daal di addu rek daal ci yéen kaay gile muy moom Kaliphone bu demee prison lundi Ousmane Sonko daf ko war a fekk si naka mardi lu tax loolu mu ne ndax bu fekkee loolu amul kon dinañ won ni réew mi kumba am ndey ak kumba amul ndey moo fi am naka noonu rek daal gannaaw li mu daal di xamee loolu muy le TikTok record Californie mi waaye li mu daal di xamle ci dimanche ji gannaaw ab live Mati 3 Pommes nga xamante rek daal amal na ko li mu daal di xamle muy Ousmane ko ci boppam moo gën a yey dem prison que moom mii ndax li nga xamante ne moom la daal di def kenn waxu ca te fu mu ne nii ngi tambaambaalu ci dëkk bi te kenn waxu ca moo tax moom nag bu fekkee ni fu mu ne nii dem na prison rek Ousmane Sonko daf ko war a fekk ca ëllëg ne li nga xamante ne moom mooy membre Pastef yi li ñuy daal di wax rek daal ci réew mi amul justice mile daf koy daal di dëgg jéggal bu baax a baax kon moom Kaliphone li koy yot naam neexul ci mbirub viol milimel waaye namit muy daal di xamle bu fekkee rek daal euh, prison mu ngi koy daal di xaar moom nag amul dara lum ci daal di mën ndax dafa nekk rek li nga xamante ne moom mooy volonté divine maanaam comme ni mu ko daal di waxee dafa fekk ñu doon ko waaye moom mii mënul dem prison moom kese bu fekkee dem na rek daal Ousmane Sonko dana ko daal di fekk si ba tey rek daal ci xëtëb gu njëkk ci leeral point ñu yàddu ci diggante Mimi ak Benno moom daanaka la woon la woon ndax fu mu ne nii tàkkalikoo nañ ki nga xamante ne moom mooy Mimi moom mi fu mu ne nii day nekk rek daal député non inscrit naka na ñuy daal di xamle rek a frustration gi nga xamante ne yëg na ko ca waaye tamit nee na li nga xamante ne rek daal moo ko tàkkaleeg Macky Sall mi muy problème troisième mandat mi ndax li nga xamante ne moom mooy Macky Sall loolu la bëggoon waaye moom daf ko daal di bañ li nga xamante ne rek daal moom mooy troisième mandat Macky Sall mi amul benn droit di ko ko daal di def amul benn itamit pouvoir ngir def ka ba tax na rek daal loolu moo leen daal di tàkkali ndax moom mii Mimi Touré ne woon sax bu nangu woon day doon li nga xamante ne moom mooy président de l'Assemblée nationale naka noona bañam moo tax rek daal defuñ kaka ba tax na moom mi itamit mënul xeex ba noppi ba àgg fi mu àgg fii fu mu ne nii ay xale yu ndaw wala sax yenn itamit di ko ko daal di yàqal ba tax na moom mii daal dina génn ci kuréel googa waaye tamit li mu daal di wax ki nga xamante ne moom mooy président Macky Sall ay ñooñam itamit ñi nga xamante ne ñoom ñoo nekk ci benn bokk yaakaar li mel ni xamee ba tax na ñenn ñi wax nañ sax daal bu fekkee ki nga xamante ne mënul sax daal gagné bureau de vote am kooku tiitalu leen kon nag daal na daal di doy ndax Mimi Touré mi am na loo xamante ni tamit ñëpp xam nañ ko ca ba tax na waa Benno Bokk Yaakaar lu ne yàq nañ ko ca waaye Mimi mii fu mu ne nii naka tey ji rek daal la daal di déposer ab lettre rek ci kanamu euh, président de l'Assemblée nationale ngir rek daal démissionné ci euh, groupe parlementaire Benno Bokk Yaakaar mile ba noppi tamit ndokk député non inscrit waaye lu ci gën a fës rek daal muy lu jëm rek daal ci 2024 yi lee muy présidentielle tax na rek daal xamoon nañ Mimi Touré vision am du leneen lu dul fauteuil président Macky Sall mile ba tax na fu mu ne nii itamit gën laal na fësal li nga xamante ne moom mooy candidature am 2024 ngir doon président ba